mucjisaati albaahiraati wal axlaaqi alxasana wa radiya allahu an saxaabatihi qurril mayaamin wa ala taabixiin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi diin amma baad أيها الإخوة المشاهدون الكرام في مشارق الأرض ومخاربها أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñuy seetaan di ànd ak ñun ci seen programme diine ji fii ci ay Africa TV gannaaw bi ñu musloo yàlla ci seytaani làqu ci moom borom bi tabaaraka wa taala waaye sant ko moom borom bi tabaaraka wa taala di cër bi nga xam ni moom la yàlla moom ci jaamam bi yàlla moom ñu ngi koy sant cant gi nga xam ni moo yelloo ak moom di julli nag di sëlmal ci sangu-sang yi ki féete kaw ñépp ci jikko yu rafet te kenn dootu ko dabati mu di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom melokaan yu rafet yooyu kooku nga xam ni fa tabarakallahu moo gën a fasaa ku weex waaye moo gën a fasaa ku ñuul moo gën a ñor ñëpp moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam allama almutaallimin wa addaba almutaaddibiin yonent boobu nga xam ne moo jàngal ñëpp fa tabaarakallahu te xamuloon lan mooy bind ak lan mooy jàng waaye gis nga ci xikma suñu boroom bindeef yaa ngi nampee xam-xam ñu ngi jàngee xam-xam ci battu yonent bi sallallahu alayhi wa ki nga xam ni jànguloon mënutoon a jàng waaye mënutoon a bind waaye moo jàngal ñépp fa tabaarakallah muy tagg nag ci moom ndax yonent bi buñ ne mënta bind mënta jàng waaye moo jàngal ñëpp loolu tagg la ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye keneen ku ñu wax loolu rekk xaste la ci yow ku ñu ne jullit nga mënoo a bind mënoo a jàng xamoo dara ci alquran xamoo dara ci diini loolu xaste la ci ab jullit waaye ci yonent bi ak ab tàgg la ci moom moo tax yal nañu ko yàlla fayal ndax ñépp a ngi nàmpe yàlla ci battu yonent bi moo jàngal ñépp waaye ci yaram bu rafet boobu ci teggiinam yooyu ak jikkoom yu rafet yooyu ak melokaanam yu rafet yooyu ci lañ jële ay teggiin ak ay yar yu rafet yonent boobu mbokk yi ñu ngi ñaan yal nañu ko yàlla fayal fayal ñu njabootam fayal ñu ay saxaabaam waaye yal na yàlla fay képp ko baax fa tabaarakallaahu dellu si nañu comme niñ ko baaxooyee ak yéen ajjuma ju nekk ci waxtu wi tey nag mbokk yi darsu bi ñu fas yéene bind ko ci tomb bu am solo fa tabaarakallah ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar ci la yàlla ràññaane woon yonent bi fa tabaarakallaahu jëlee ko masjidul haram yóbbu ko masjidul aqsa mu jógee koo ci benn guddi gi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam summa xurija ila samawati al ula fa tabaarakallah mu nekkoon nag rihla mubaaraka waaye tayiba ci guddik ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab muy weer wi ñu nekk ci la yàlla fa tabaarakallah woo ngan yenent bi sallallahu alayhi wa sallam woo ko ngan ca asamaani juróom ñaar mu nekkoon tukki moo xam ne nit tukki na ba tàyyi waaye kenn mësta tukki indi njëriñ ak sërica tabaarakallah gaa yi sant siise ture ku ci tukki ay panket ngay indi mbiri lekk rekk ngay indil sa njaboot waaye yenent bi bi mu yéegee ci asamaan topp leen ñu ñu wax leen nga xam ni nit most indi njëriñ lu toll noonu pan ak juróom-ñaar ci la yonent bi ci la yàlla rañaane soppem bi di sang bi muhammad sallallahu alayhi wa al israu fa hiya rixlatun fa hiya rihlatun samawiyatun min la muqaddas ila samawatil ula wal ardi subhanahu wa taala mbokk yi foog ñu lan mooy isra ak lan mooy mixraaj ñaari mbir la yoo xam ni yonent bi ci benn guddi la ko def ñaari tukki la waaye ci benn guddi la ko yonent bi def buñ ne al israa'u rañaan bi mooy tukki mi nga xam ne yonent bi def na ko waaye ci kaw jéeri ji la ko def ci kaw suuf la ko def ci kaw jéeri ji la dox loolu mooy israa mooy rañaan gi li tàmbale masjidul haram ixraaj nag yéeg bi nag mooy li tàmbale baytul muq daf doon yéeg di dem di bëtt asamaan yi di dem moo tax yàlla wax ko ci alquranul karim mu nekk tukki moo xam ne dafa làmboo ay muxjisaat ay kéemtaan yuy dëgëral ngëmu jullit bi moo tax tukki mi bi ci yonent bi joge ko dem ci benn guddi dellu ñëw ne jóge naa masjidul xaraam ci guddi gi dem baytul muqaddas jiite fa malaaka yi yéeg ci asamaan ba jeexal asamaan yu juróom-ñaar romb sidratul muntaha giseeg suma borom ci guddi gi yàlla jox ma lim ma jox ci ay ay sërite wan ma lim ma wan ba wan ma lum mosta wan kenn ma dellu si waat ci guddi gi bi ko yenint bi nettalee ñu bari seen pas-pas seen ngëm ci yenint bi dafa fekkee ko xam nga lu tax mooy dañu xelaat ne boo jógee ko Makka di dem baytul muqaddas boo waree gilim arab yi dañ ko daan yéeg weer wàcc weer door a yegg léegi nag lu nit war a war gilim gilim dox ak yow lu toll ci weer nga door a àgg walla nga dox ñaari weer door a àgg su la nit ne dem naa fa ci guddi romb ko yéeg ci kaw ñibbi si wàtt bër setut bu la yàlla dimbalewut doo ko nangu moo tax yonent bi ci tukki nii am na ci saxaaba yi ak jullit ñi ñu ci seen ngëm ak seen pas-pas gën a yokkoo ñu gën a xam cir bi yàlla jox yonent bi waaye ñu gën a seen ngëm gën ci dëgëree ñu xamee ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala waaye am na ñoo xam ne biñ déggee xibaar bi keroog lañ wan gannaaw yonent bi keroog lañ ko weddi ngir gëm ne loolu mënul nekk moo tax am na ñu ci deferoo waaye am na ñu ci yàqule wallay ndeysaan muy tukki mu riis nag tukki moo xam ne li ci nekk ci ay njàngat dafa bari waaye tukki mu bari njëriñ nag moo tax bëgguñu toog rek di waxtaani yenent bi ràññaan na jaar na fii teeru nañ ko fii def na lii mu nekk lu ñuy nettali rekk mu jeex déedéet waaye dafa am ay lesin ay xeeti njàngat yuñ war a jàng ci ràññaanu yenent bi ak yéeg gi mu yéeg ci asamaan jullit ñi mën nañu sax seen giiru dund di jàng tukki mi te duñ mën a faxe ba jeexal njëriñ li dañ ko jeexal mukk moo tax yàlla bi muy nettali yoon wi sax bi mu koy nettali nim ko waxee sax dangay xam ne yoon wi lépp kiimtaan la ba jeex moo tax yàlla ubbee ci subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa alladi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samihu albasir seetal yàlla ni mu ko nettalee tudd naa seetlu ki nga xam ne ràññaanee na jaamam ba yàlla mooy ki rañaane yonent bi jëli ko masjidul haram teg ko ci kaw alburaax mbokk yi alburaax rekk njàng la ndax ni ko yàlla bindi daa daaba la joo xam boo ko gisee yemul ni fas waaye moo ëpp mbaam tuuti kon nga ne mbaam la léegi nga xool ko ba yàgg mu jox la fas mhm. ndax genn wàll gi jëmmi fas la genn wàll gi jëmmi mbaam yàlla jox ko xar kanamu doomu aadama jox ko gaawaay boo xam ni bu sikkee tànkam fu bëtam tege rekk fala wewi di tege ji wallaay ndeysaan falaay boobu moom la yàlla jox yonent bi mu jële ko masjidul haram wala nga ni mooy foowil boobu yàlla jox yonent bi yonent bi war ci mu jële ko masjidul haram pour yóbbu ko nag baytul muqaddas mhm. ñeen yonent bi àndal ci tukki mi yonent bi ñi ko dar ñi ko gunge bi muy génn kër ummu haani jigéenam ndax bis biñ koy rañaane dafa fekk ummu haani moo invite yonent bi reer ñu reer ba pare jibril na dëreet ak alburaax ñëw si na ko sa boroma la soxla te nii na bëggul ngeen gisee ci kaw suuf gise bi xajul ci asamaani juróom-ñaar wallaay ndeysaan yàlla dafa gis ni yonent baa ngi màkka mbokkam yi di ko xoñoñal ñi ko wóoroon ñépp daanaka génn nañ àdduna waa kër baayam lànk nañ ne duñ ko dimbale weddi nañ ko kër nijaayam sànni nañ ko xeer ba tuur deretam mu nekk ci diggante jafe-jafe boobu yàlla na ko dinaa la woo ngan ngan goo xam ne soo ma ganeesee ba ma eewi la bàyyi la boo dellu si ci àdduna kenn dootul la mën a def lu la naqari <laughs> waaw moo tax yàlla woo ko ngan ci kaw ngir defar xolu yenent bi defar bakkanam ba bu ñëwee delluwaat àdduna ku ko sàllax suuf walla nga saaga ko walla nga xas ko du tontuwanteg yow ndax wa isa xaatabahumul jaahiluun qaalu salaaman moo tax yàlla jële ko ci suuf yóbbu ko ci kaw ngir mottali li manqué woon ci moom ba pare yebal ko nag ne ko demal li ñi manqué moo tax bi yonent bi yéegee ba wàcc kenn mënatu koo def lu ko naqari mu mujj nekk jéggalekat kon suñu boroom am na lu mu namoon na def ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bëggoon bu dellu see it mu nekk koo xam ne ku manqué ku ne boo dajeeg moom yonent bi mottali la mu jóge nag masjidul haram guddi jibril escorte ko ak mikail asrafil ak asrail ñoom ñeenti malaaka yooyu ñoo dar yonent yàlla muhammad yonent bi nekk ci digg bi mu mel ni président buy génn di dem ci palaas niñ koy daree noonu ci yonent bi lañ ko jànge waaye escorte bu rafetee ni bu Seydina Muhammad amul benn buur wala benn président bu mos a am escorte bu rafetee noonu waaye bu bëree kaaraan kaaraange noonu kenn mosu ko am waaw gars yi seen yos rafet na lool waaye photocopie la original bi <laughs> mooy yonent yàlla Muhammad moom ñeent rek ko dar ñeent rek ñoo ko dar nga seet nag yi àdduna bi ndax am na kenn ku ci ñemee génn sa néeg génn yow kenn walla ñeenti nit gunge la ñu bari wóoloo wuñ yàlla noonu ngir ragal ku leen defal bagaas walla nekk càmmoñ yunti yàlla Muhammad nekk ci biir bi bi muy génn màkka rek ñu daw tuuti mu dégg ci wetu ndeyjooram am ku ko woo naan ko xif yaa Muhammad taxawal yow Muhammad dama la bugg laayee biir dama la bëgg digal yonent bi ne ma dox wuyuwuma ko ñu dem tuuti am ku ko taxawal dama la bëgg laaye biir wax ak yow yonent bi ne ma dem wuyuwuma ko kon bàyyil sa xel bi mu jógee ko Makka bëgg ko ak lan lañ ko doon wooloo lan lañ bëggoon ci moom taxaw kooku ne ko dafa am lu ma bëgg wax ak yow lu may jë wax ak yow dafa am lu ma la bëgg ak mu dox tuuti taarallu foo ko natt ci rafet yàlla jox na ko soxna si nee na yére ya mu sol façon yére ya amul ci àdduna la mu ràng ci baatam ci ay takkaayu wurus ba ci loxo ya sañse ga mu sañse bu fenkoon ci àdduna góor ñu bari danañ ko xëccoo ba far rayante ba dem barsax jigéen jooju moo taxaw ci kaw yoon bi ne yonent bi taxawal dama bëgg wax ak yow allahu akbar jigéen ju rafet jooju moom mujj taxaw ci yow yow laa fi doon xaar ca lu mu bëgg digal yonent bi lu mu ko bëgg a ak jigéen ji ne attandu ma nuyu ma ma ci ndeyjoor fóon ma ci càmmoñ andil ma ndab nee na ñu tegal ma ko nag hmm? wallaay ndeysaan tegal nañ ko ndabu ndabu ndabu lañ tegal yu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bi mu wàccee ci baytul muqaddas ndab loo xam ni ndox mu neex moo ci nekk ak ndab loo xam ni soow piir moo ci nekk amul jëndi sukkur lépp a ngi ci biir ak ndab loo xam ni sàngara piir moo ci nekk ku ko naan màndi ñu ne ko mu ngoog allahu akbar gis rafetaayu ndox mi jëlaat kubéer bi ubaat ko ba mu baax moom lañ ko ci defal boo xam ne wayal nañu ko ba mu jaar yoon mu ubbi ñetteelu ndab li gis ne sàngara piir te soow piir lañ ko fa defal yonent bi ubbi ndab loolu am soow ba muy waaje nga doon gan ci barab ñu tegal la añ walla tegal la reer walla ndéewoo nga ne fuuf yépp lekk yépp ba mu jeex loolu du xel ci gan ga rus naa lekk rus naa naan soow bi ba mu jeex tàkk rus na ko ngir kersa gi nekk ci moom bokkul ci nite nga nekk gan ci barab ñu taajal la bagaanu soow nga naan ko ba mu jeex tàkk desaloo ca dara du nite kersa googu moo tax yonent bi desal ci soow mi tuuti ne ñu toog tuuti jibril dellu nag ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir néeg bi na ko xéewlu nga mu ne ko alhamdulillah lekk naa ba suur jibril na ko lii yëpp pour yow la de jibril ubbi ndab li nga xam ne moo defoon ndox mu gis ne ndox mu ubbi ndab li nga xam ne moo def sàngara gis ne yonent bi laalu ci dara naanu ci dara mu ubbi ndab li nga xam ne moo def soow gis ne yonent bi soow mi la naan bàyyi fi ndox mi ak sàngara bi jibril muuñ ree na ko akastal fitra wallaay ndeysaan jël nga bi gën de dal nga ci de li xale yi wax soo amee jëkkër ju baax walla jabar ju baax ñu ne la dal nga ci du tey la tàmbali de dal nga ci lu fi yàgg la jibril na ko jël nga bi gën waaw jël nga bi gën mu ne ko waaye gis nga soow mi boo naa noon ba mu jeex mu ne ko ah mu ne ko ëllëg yowmal qiyaam sa xeet wi kenn du ci dem safara ñéppay ànd ak yow dugg aljana yonent bi ne ko nga ni mu ne ko boo naanoon lépp ñéppay dem aljana kenn du dem safara waaye nag li nga ci desal nii mu ne ko ah, mu ne ko ñii ñooy ñi war a rëcc ci sa xeet wi war a dem safara allahu akbar yenent bi ne casaat ndab li bëgga a naan na ko jox ma ma àgg li li ci des jibril na ko déedéet yàlla bindoon na démb ci asal te xalimba ya doon bind dogalu yàlla yi xalimba yi cëru ñi war a ànd ak yow dem aljana li des ci soow mi mooy cëru ñi nga xam ne yàlla dogal na démb ne faaw ñu dem safara naanaat amut boo naanaatoon li ci des du tere gaa yi dem mbokk yi moo tax li li li li jara jàngat fii ndax man maag yow bokk walla man maag yow suñ cër dafa des ci li yenent bi bàyyi noonu ñu war a dem safara gis nga fekk xamoo fekk xamaguloo ni bokk nga ci ñi yonent bi naanaaleel seen cër ñu war a dem aljana fii loolu leer a gut la bul yàndoor bul bàyyi ndeku ëpp naa def wallay ndeysaan as ci yoon bi mu ni dafa bëgg a wax ak man dafa ma bëgg laaye laaye biir wuyuwuma ko solu ba jekk nan ma taxawal dama bëgg a wax ak yow bi may dugg si baytul muqaddas am na benn waxambaane bu rafet moo ma njëkk a nuyu fóon ma ci ndeyjoor ak càmmoñ saafuwanteeg man dem kooku mooy kan mbokk yi gis ngeen rañaanu yonent bi li ci nekk ci njàngat dafa bari mu ni ko nañ dellu ci ki njëkka woo ci ndeyjoor njiitu nasaraan yi moo la doon woo mu ni ko gis nga boo taxawoon walla nga déglu ko jullit yàlla wàllu càmmoñ kooku mooy njiitu yahood yi doo far yegg fi nga jëm dina la dina la yàq naaw moo tax yal nañu yàlla dimbale dox ba yegg ca ndimbalu yàlla la sol ay xam nga jongama ju rafet jooju mooy kan say koo koy duniyaa allahu akbar yéen ci bi ne ko moo soppee ko xale bu jigéen sañ se noonu taxaw ci kaw yoon bi pour gàllankoor yàlla mi nga jëm ndax boo tax sa xeet yépp àdduna leen di gënal yàlla àdduna moo leen di gënal yàlla waaye ndokk yàlla bi nga taxawut santal yàlla bi nga ko faalewut dafa mel ni xale bu jigéen bu tollu ci digg ndaw yaa xam nekk jànq bu rafet nga xam ne day sañse di solo dem ci yàlla tëgg la njëlloo musali la mu ne ko àdduna bis bu ne day sañse mel ni xale bu jigéen ku rafet ku ni mu ànd ak yow ku siiw ko moom bis bu ne mooy fase <laughs> moom àdduna doo fase ku sa business daanu wërsëg wi daanu amatoo dara àdduna bind la leetar fase la ci ndeyjoor ak càmmoñ saafuwanteeg man la ci ndeyjoor ak càmm ji dee ci ngëm yàlla moo tax isra bi rek ci asamaan xaraaj foofu mooy airport bi ngay jëlee flight moo tax yonent bi bi muy yéeg foofu la jëlee flight nag waaw commencé nag transit yi nag commencé léeg-léeg nga dégg ñu naan day jaar Morocco wala yonent léeg nga dégg ñu day jaar Morocco wala yonent bi moo yéeg jaar fa yonent moo tax département yooyu yëpp ministre yooyu yëpp fuñ ci àgg rek nga ne ko bàyyi ma xel yaa ngi jëm ci yàlla mooy président yi président yi te suma fayil bi mu ngi lëcc faxeel ba lijjantil ma ko ba mu defal ma ok bala moo taxawal bis penc mhm. mu ñëw nag bi yaa u yenent yëpp yenent bi jiite leen fa ñaari ràkka waaye moom bi muy yéegee ci high table bi ba joxe speech ci la ñépp noppi lu ñor ndax ki gën a ñor ñépp bi waxee ñépp a weddem kenn mënatul a wax dara moom ñu njëkk a wax ba pare moom mu mujj a wax moo tax bi ko yàlla yónni bu njëkkoon a ñëw dootul jar kenn ñëw moo tax bi ko yàlla yónnee daf ko ne yow yaay yónnente mujj waaw yónnente dootul amati suma gannaaw ci man la yem boo ñëwee loo fiy wax <laughs> loo fiy indeeti doo fi indi mukk téere bu gën a fasaa wallaay ndeysaan li lëndëmoon yépp yonent bi ci jamono joo xam ne dafa mel ni guddi la waaye njàngale mu rafet nit ñu bàyyee ak jikko yu rafet yi ak lu ne mu leeral ko dafa mel ni nekkatuñ ci guddi sax dañu nekk ci digg njol guddi yi dañoo mel ni ay bëccëg dara lëndëmatut lu ne yonent bi digal nañu ko ci ne nañ ko moytu luy lu baax ci suñ dund mu dem ba yàgg mu ne xëccoo du ñàkk sax de ñan naa yàlla ñett mu may ma ñaar xañ ma di mbëkkante suma gannaaw demee ba diw ne nii la kii ne nii la kii ko mat kii matu ko kii lañ war a jiital waruñoo jiital kii kii kii ko xeyoo ko bu ngeen demee hmm? jullit mooy nangu te topp rek waaw su ko defee kon tabaarakallah mel na ni li ñu waxtu yi cërale woon jeex si na ñu ngi sant fa tabaarakallahu soxna xadijatu i sant mbokki déglukat yi ak fu ngeen mën di nekk ci goxu àdduna bi di it boroom kër gi Mouhamadul Amin ak mboolem staff bi yal na yàlla bokk dimbale ñëpp yal na yàlla bokk taxawu ñëpp yal na yàlla bokk sàmm ñëpp di leen jox nag dig daje incha allahu ci kàttanu ki ñu mayoon kàttan bu ñu te mooy yéeg gi yonent bi yéeg ci asamaan lan la ko fa yàlla wan yan sëri ci la ko fa jox incha allah dinañ ci ñëw ñu ngi leen di sant di wax ne wa dumtum bi xeer wasalaamu aleykum wa rahmatullahi